salaamaaleykum euh, ba tey sunu ziar Médine ci bërëbu historique yi ñu ngi nii tey ci bërëbu tool yi nga xam ne mooy toolu tàndarma yi nga xam ne ku xam Médine xam Makka xam Arabie Saoudite sa xel li muy njëkk dem mooy ci toolu tàndarma yi ñëw nañ nag def fi visite ànd ak sunu soppe ji yoro ak sunu waaj yi di Ousmane Fam mu bokk ci état bu visite yi ñuy amal ci medine kon seen yoro bismillah loolu mën a baaxee fii ah, eh, jàkkaarloo di ko si mooy ajwa sala salam dafa wax ni nag képp koo xam ne nga lekk juróom-ñaari tàndarma ci tàndarma bu ñul boobu nee na dara du la lor moo xam wala seex bu dee kon tamit dañ lay jëba du la wàññi dara wala nga dox jog ak jiba rek mel noonu du la wàññi dara kon loolu mooy tàndarme midin waaw tàndarme midin nag moom euh, lii ci wax liñ ci wax ci addis bi moo tax mu woote beneen tàndarma faneen foo ko mën di baax na waaye nag bi fii moom moom moom moom addis bi macha allah waaw kon foofu la woote keneen tàndarma yi. kon tàndarma gi mooy xajwa nga xam ne moom su borom subhaanahu wa taala ci yonent bi salaa salaam may na ko ci tawféexam képp ko ci lekk juróom-ñaar boo xëyee lépp luy tooke wala njabar dina dañ sa yaram kon moo nekk tàndarma gu ñuul gi mooy xajwa waaw waaw kon bari na yaa nga xam ne daal ñu ngi koy bay ci dëkk bi waaye daal bii daal moo am moom ngëneel lool macha allah macha allah macha allah